Moustapha naka moom. waaw alaaji as. yaa ngi ci téléphone bi. waaw ba baal kii naa quoi. maa ngi bëggoon ñu def benn vidéo quoi. waaye Pa Jibel laa doon woo. waaw ah, Pa Jibel mooy euh, ab politique bi. waaw patriote ab politique bi mais gars yi de. Hmm. <laughs> gaa yi ngay sànni xeer de gars yi ne ne nakate yoo léegi daal nakate moom taxawu la bokk quoi. ah taxaw. loolu la gars yi wax de. <laughs> ah kon nag taxawu bokk. waaw taxawu kay. naka mu nak yaa ci si wa waaw ni alors su wala election bi de su wala wure ba di dem keng waxi mag di dem dañ tàlli olof Ndiaye dal neena lepp loy bañ mu ñew bu ko jappal bëss wa te jël moom faw mu am suba. inshallah wa lo loo gisee ya nag suñu candidat bi Bassirou Diomaye fay a di ñaanal ndam. mais gis nga de toutes les façons xam nga li si gaay doon wax yëpp wax nañ ko. mais mhm. ma dafa am ben affaire bu ma jaaxal depuis démb daf may xawa travailler si si par rapport ak Bassirou quoi. Mm-hmm. xam nga du si du ay kii nag man xam nga ay xam-xam yooyu yaa ma gën a xam man kiiw ma. Mm-hmm. aw ma xam-xamu baati mais daal dafa am benn chiffre bu ma xaw a jaaxal daal. non man aw ma xam-xamu baati <laughs> man ak yow yem wala nga tànn ma sax. xam naa ne daal Alaajaas. waaw xam nga ñun dans la religion musulmane. Mm-hmm. xam nga chiffre sept dafa bari lu muy ñëw quoi. juróom-ñaar juróom-ñaar. Euh, saar bi gën si alxuraan. faati yàlla suma jumul. faatihatul kitaab waaw mm-hmm. moom mi gën si alxuraan gaa yi naan ko euh, ndayu ndayu kii ndayu saar yi kitaab waaw moom gis nañ ne sept aaya la am mm-hmm. xam te léegi boo xoolee euh, te gaa yi dañ ne faatiya bi lépp li si alxuraan mi ngi si biir faatiya mm-hmm. donc maanaam donc sept aaya yooyu c'est c'est pas pour rien te Basiru dama gis ne moom ak chiffre sept boobu noonu Mm-hmm. Euh, da si bari lu muy ñëw trop si ay maanaam nekkinam wala jëfinam. Mm-hmm. parce que soo xoolee Basirou bi ñuy sos Pastef. 34 mm-hmm. ans la amoon. 2014. 2014 moom il est de 80 2014 34 ans la am. donc 34 ans yi boo xoolee boo defee 3 plus 4 da lay jox 7. léegi instant yii nii nii nii Basirou di laaj réew mi. Basirou 43 ans la am. boo defaatee 3 ak 7 mhm. bi de ñëwaat 7 bi de c'est le seul candidat bi nga 7 jours la campagne mhm. parce que jeudi le guen mhm. euh, vendredi mu def ki euh, conférence de presse mo donc samedi la commencé donc bo calculer samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi campagne bi diex donc mom 7 jours la campagne té bo mi campagne le 16 a commencé le 16 le 16 donc, si vous avez 1 plus 6, 1 plus 6, vous avez 7. Et la campagne, l'élection est soubelle. Soubelle est 24. Soubelle 24. D'accord. Le 25 est mon anniversaire. Le 25 mars. Le 25 mars. -hmm. Le 25 est mon anniversaire. Le 25 est mon anniversaire. 2 à 1, vous avez 7. Une affaire, vous avez dit que vous avez dit du ma sax di wax naan la ay Sénégal sept lettres la ak yooyu garaaw. mais vingt cinq mars bi moo nekkoon sax deuxième alternance bi ah. ah gis nga loolu sax yaa ngi ko suuxaale woon. 2012 <laughs> li ma gën a xam naa fi may daanale si set bi. waaw naa ne bon gars yi peut-être dina yegal yeneen yi. Mm-hmm. Euh, waxuma na ne sa ay Sénégal sept sept lettres la loolu loolu loolu yi xam nañ ko. Uh-huh. <laughs> moom moom dëkk bi mu bëgg doon président. set lettres la la. Mm-hmm. mais boo xoolee Basirou soo ko bindee en wolof.

ah kon jomay mom jomay mom setel na de. non te li si gëna neex ba neex. xam nga jomay mom projet bi dañ ko ko passe en profondeur. waaw waaye kiko ko passe en profondeur ñëwal. le président Ousmane Sonko. ñaata lettre la tuddu <laughs> Ousmane bi. waaw O. waaw U. waaw S. waaw M. waaw A. A N. N E. mo timi juroom ñaari ñewat na. man dal leen xamna ko. ah moy gis nga sama waay ji. Mhm. si vous voulez voter a dimanche pour fal le basil. dimanche c'est le septième jour semaines. semaine bi. Mhm. te bu yàlla defee Inch'Allah, allah rabi Bassirou le premier tour te yàlla na yàlla def loolu bu dee moo gën Sénégal. Mhm. xam Sénégal. donc forcément euh, passation de service Macky Sall koy le 3. Mhm. donc mi koy le 3 avril avril le quatrième mois donc c'est le 3 0 4. 3 plus 4. égal 7. 7 bi dafay ñëwaat 7 bi ñëwaati na. li ma bëgg wax xam nga basirou dajale na set yëpp andi ko. mais gis campagne ah. hmm. non bu ko ay 61 ma fekk ko Sénégal. Je candidat yi dal mom mo ci commencé Basse, waaw waaw basirou dal moy ko xamné al Bashir qui beuglé ah mo kon kon kay day am basar qul innama ana basarun comme yonent bi lu wax man nit rek mhm. vision ko manam day gis dafa am gis gis ni ngi commencé ma lay waxu da ngay ki batine ngay bañ mais graw mo fa tag vidéo bi koy tejé moy euh ah. alquran alquran ah. euh ban ban ban lettre la tambalé du bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim manam basmala dal basmala waaw turum commencé bas fofu ah, ah astajel astajel tejel tejel tejel yalla ko yalla may ndam amin ya rabbi amin astajel tejel tejel kon jaajeuf